bëggee di jot ci vidéo yi am njariñ yi bàyyi ko fii ci sama diine TV dangay ngay ñëw bés fii ñu bind sabone soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njariñ du la raw. la premier cas gii ñuy wax naan tey am nañ nangami cas premier cas mi ngi njëkk a xewee ci Aboubacar ci góor jigéen ci gu ñuy wax fajaa atu Aboubacar ñu ne ko jàpp nañ góor jigéen mu ngi sëy ak moromam mu ne yonent bi waxam na ko ba muy dem ak ma man wajadtumuuhu yaamalu amala qawmi luut faqtulul faaila wal mafuula bi fu ngeen fekkati kuy jëf-jëfi ñi tudd nañu yàlla luut ya na ngeen ko rey mais yonent bi waxul ni ñu koy rey te rey moo amu ci woon kaa rey leen ko rek la wax Aboubacar dajale saxaba yépp ñu toog mu ne waaw nuñ koy reyee yàlla yonent bi nañ ko rey mais nuñ koy reyee saxaba yi def ñaari xaaj Sayyiduna Ali ne ko daal man de lii ma gis mooy nañ leen lakk taal safara lakk leen rek bañ xam Seyduna Omar ak Seyduna Ousmane ñoo bokk position ñoom ñaar ñoom dañoo wax ne nañu seet étage bi gën a gudd ci dëkk bi wala montagne bi fi gën a kawe ñi yéegal leen ca bamax leen ñi daanu dee Aboubacar mu jigi mu ne daal man xalaatab Seyduna Aliyu bi moo ma doy moom laa jël moo tax Aboubacar ak Aliyu ñoo bokk position ci góor jigéen dafa ne bu ñu leen jàppee nañ leen taal Seyduna Omar ak Seyduna Ousmane ñoo bokk position dafa ne nañ yëkkati ba étage bi gën a kawe bu doon tey Sénégal ngay waxee neel immeuble Kébé ñu yëgal leen ba ca kaw rek ba wax leen wala doj wala nekk ca ngor lii mooy position Seyduna Aboubacar ak Seyduna Omar ñoom ñëpp nag ci mantuuqul Qur'an lañ jëlee ci mafhum ma mantuuq ba mooy lan alquran dafa ne fa la maa jaa amruna jaal naa aliyaha saafilaha aliyaha saafilaha jooja ci la. Seyduna Omar ak Ousmane ballalo ne kon nañ yëkëti fa gëna kawé rek depp leen ko wa amtarna alim hijaratan min sijilin jiilin ñom ci la ci la xàll yu ballalu ne kon yalla dafa leen yonne won xeer yu bàyyi ko ci safara kon nañ leen lak rek lool moko ko waral xam nga bi mbir mi xew amna ay goor jigen yu nekkuton ci juroomi dëkk ya te ci ci ci mbir mi lañ bokk ñoo ñep jibril mo identifier sen tour ñi bind ci sen tour def yonne leen xeer da ngay waxanteeg nit sax ci commerce ba ngay bëgg a fay te fekk te woo góor jigéen nga xeer wa fekk la fa nga maasaloo moo tax xeer wu baxe koo ci kaw wàcc ci jaamab yàlla lakk ko ñaari yoon la mos a am ba àdduna bi sosoo ba léegi benn bi mooy abraham mi doon jéem a tabax kaaba ga fële ca yaman benn bi mooy góor jigéen ñi bii mooy wa am tar na alim hijaaratan min sijilin bii mooy alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil lu ca tegu tarmihim bi hijaratin min sijil kon wa am tarna alayhim hijaratin min sijil tarmihim bi hijaratin min sijil ñaar yon rek la am ci alquran bi gor jigen ki ku don jema tabakh kaaba kon wa jam jam padari yi len sen xel de sen kaaba gogu nañ ci bàyyi xel loolu gàcce bu la réewam Cheikh Omar Foutiyu ñu la ñay tabakh kaaba abraha li muy bon bon sa kaabaam nga kenn mësu koo aj ñu ne aj